ko noonu di nga gis ayatun min ayatillahi kon buñ toogee ci barab bi ci ahdu cheikhana cheikh Mouhamadul Maahi cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma ñu koy ziyaara bu baax a baax di ziyaara mboolem ay rakkam yu tedd ziyaara al imam al fadil waaye tamit borom gàmmu gi di cheikh Mouhamadul Amin rakkam bi nga xam ne moo koy gunge cheikh Mouhamadul Makki ak njabooti baay gi yëpp ak naatiqu rasmi cheikh Mouhamadul Maahi waaye. زيارة تميت ندوكل لجنة ثقافية بيغا خمنة موغي رونو تي كوماف تي سينا نجيتال نجيتال الشيخ إبراهيم مامون وايا نجيتال لجنة ثقافية موي كوميشون كيترار بدي الشيخ محمد سراج الدين اك بروم قم قميغا خمنة نيو نيك تي وتم دي اي كوادر nga xamne ñoo nek ci wara al kawalis malay ñi jotali nak ngeur ma nek soppe yu bare bare bare yo xamne barki démb ba legi ñu may o di wax di rafetlu taxawaayu rafet yi nga xamne am ngeen ko waye xam-xam bu rafet bi nga xamne ne fexe ngeen bam genn ci ay boromi xam-xam nga xamne ne bu fekkoon na waxtaan yu silsila waxtaan yoy nonu dajale neen ko dina doon mën nek solution ci problème yu bari yo xamne ne société Sénégal bi mu ngi koy dund wala nga na alam bi mu ngi koy dund kon dal lañ na thaqaafiya buñ leen wax lumay bravo yalla na fay leen ci barke Mawlana Cheikh ibrahim sallallahu wasallam Euh, waxtaan wi nag mooy dañuy wax ne gàmmu feetoo juddu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa bokk ci luy feeñal luy fësal mbokkoo ci lislaam mbokkoo ci yàlla tabaraka wa taala muy tem boo xam ne tem bu yaatu la làmboon a gàmmu gi lépp waaye dañ ciy jaar rek ndax ñeent fukki minute leen am bu fekkoon ne borom xam-xam moo koy taxawee dina ci wax lu am solo waaye su fekkee ne nag ku mel ni man moo ciy wax amaan na euh, dinañ ci bàyyi lu bari waaye lum gaaw-gaaw dinañ wax lan mooy gàmmu waaye duma ko yaatal ndax boroom xam-xam yu bari ci fan yi déglu neen leen ci ñu indi gàmmu euh, layal ko walla sax wax ay argument duma wax layal ay argument yi nga xam ne mooy fësal ne gàmmu duhut bidaa waaye dinaa wax ne gàmmu ci baay radiallahu anhu dégg nga de lan la gàmmu ci baay mooy bégee juddu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ndax lépp loo xam ne am neen ko ci lislaam di ko tiitaroo nga xam ne muy julli muy xoor muy aj muy mbooleem mbaax gi nga xam ne yàlla may nañu ko ñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla wax na leen ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas bokk yéen xeeti muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen gën ji xeet boo xam ne feeñal naa ko ci jamono foog naa ne loolu yëpp buñ ko amee ñu ngi ko amee ci barakati rasulillahi sallallahu alayhi moo tax laay ji nga xam ne ubbee neen ko yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi na ko وخلال الجلي جنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخلنا لن تنجلي نت سبب انجلي لك يالا اغير ما نك يالا بني بك نن بك تي لولو مو گن لپ لو خامنا دجال نينكو تي ادنا ا تي كوم اك تي لو مونا دون كون ابن عباس دفا فري الله جي فضل الله موي القران الكريم رحمه الله رحمه بنك يرمانك موي mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla def daf ñooñu wax ne ñu ne lu ngeen war a bëggee dëgg dëgg dëgg yéen jullit ñi mooy na ngeen bëggee alquran mi nga xam ne wàccee naa ko ci kan ci ki nga xam ne mooy jëmmi yërmaane di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu rek doyoon na tettal da nga de ci gàmmu waaye gàmmu ci bàyyi bàyyi def ne gàmmu man dama koy ballaloo ci laaya ji nii wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bihi fuadak yàlla wax na yonent sallallahu alayhi wasallam ne la solo xibaar yi ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon ci yonent ngir lan ngir ma dëgëral ci sa xol yow muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne bu fekkee ne yonent bi moo soxla loolu rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy jullit ñi soxla neen ñu waxtaanal ñu yonent bi ak ay jaar-jaaram yonent bi ci ay jikkoom yonent bi ci ay jëflanteem yonent bi ci melokaanam su ko defee loolu dina gën a dëgëral suñu xol yi ci ñu gën a gëm yàlla waaye gën a am tamit ak dal kon euh, gàmmu ci baay du dajee di lekk di naan du dajee taal ay làmp duut ay tuquusaat waaye gàmmu occasion la boo xam ne ci moolaana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ak madrasaam mooy jàllale risaalatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam beesalaat xol yi ci yokk leen bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit fësalaat jullit ñi yoon wi nga xam ne mooy yoon woo xam ne ci yoon woowu rek leen mën a baaxee heure buñ ci jàppee kawe waaye heure buñ ko bàyyee rek su boobaa suñuy noon man ñu kon loolu moom mooy gàmmu ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu nag euh, sëriñam Mawlaaya Seydi Ahmed Tijaani radiyallahu anhu dañ koo laaj na ko waaw guddi gàmmu lan lañ ci war a liggéey nuñ ko war a doxalee yow Mawlaay si Ahmad Tijaani radiyallaahu anhu mu ne guddi gàmmu ku ci def ku ci sikkar ku ci tudd yàlla def nga lu baax lool ndax tudd yàlla lu baax la ci waxtu wu nekk rawatina ci guddi gàmmu waaye nag su boobaa na nga xam ne génn nga ci tem bi nga xam ne mooy tami gàmmu mu ne tami gàmmu tem wax maanaam lu ñu war a waxtaanee ci gàmmu génn nga ci parce que buñ na gàmmu rek. am na lu ñu war a waxtaanee ci gàmm kon ba si gàmmu guddi gàmm mu ne du guddi goo xam ne guddi dégg nga de sikkar la boo ko defee baax na waaye mu ne guddi gi mooy nga waxtaanee qissatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam waaye waxtaanee ay jaar-jaaram waxtaanee ay jikkoom waaye ba léegi tamit di euh, bëri looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su boobaa nag xata yaxzu arwaaxal muslimina bi samaai zikrihi كي يرزق كي يرزقهم الله محبة خاصة به صلى الله عليه وسلم من بعد خم نلقي دني دند الروح جلدني تنيي دك تريون ديال محمد صلى الله عليه وسلم أك أي قسم أك جار جارم غير يالله من لنا ورسقل بجيلك ينتبه صلى الله عليه وسلم بجيل جو خم نم بجيلك دينغ especially كن بوجي سفكر بمنام خلاط بيجا خم moo sampe ci gàmmu ci madrasatu tijaniya bu gën a yaatu ci madrasa Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mooy waxtaanee yonent bi ci xam-xam waaye waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi ci ay jikko su ko defee nag kon jëf jooju da ngay gis ne dafay sori lool ci biddaa bi nga xam ne moom la ñuy wax bidaa mazmuma ànd ak nag ñun ñëpp xam ne ne bidaa bëri na ay xaaj dégg nga ay darajaat la bidaa xasana am na bidaa mazmuma am na biddaa boo xam ne xaraam na sax dégg am na waaye bu ñu waxee ne salafu saalix duñ daan defee gàmmu comme nuñ koy defee nii loolu du nekk du nekk mukk loo xam ne dina mën a tere ne ñun waruñoo dégg gàmmoo dégg nii ndax bidaal mazmuma ci charia mooy lan fa xaalafa aslan aw lam yakun laha aslun mooy loo xam ne da nga koo def mu uute benn fondement ci fondement l'islam yi ñu xam wala loo xam ne da nga koo def te amut fondement dégg nga de ci l'islam loolu rek moom mooy bidaa boo xam ne bidaa masmuma euh, lu yaatu la koo xam ne nag sa gox dafa xat wala sa xam-xam da nga xatal su boobaa nag mën ngaa ayibal lii waaye lii moom ci fikra bi nga xam ne moom lañ koy defee ak ku ko doon dund sax dégg nga def fan yii yëpp ak bés bii nii ci xam-xam yi nga xam ne génn na fi xam nga ne lii jaral na jar na nit bàyyee ko Chine dégg ba Medina Baye ngir mën a ñëw jël xam-xam yi nga xam ne moo fi moo fi nekk. kon gàmm googu nag euh, dafa am loo xam ne tabax na ko ci dëgëral mbokkoo dégg nga de ci lislaam ndax mbokkoo ci lislaam man ngaa wax ne sarxan wa xisnan xasinan laa yaqbalu at tasaddu'u wa tashaququ l'islam dafa melni ñënd lo xamné mboko ci l'islam yonent bi da ko tabaxé no xamné muy ñënd lo xamné warta xar warta toj er bu nek dafa wara nek lu kolé wu nek lo xamné tamit lu jëm lu jëm lu jëm la ndax abu musa al ashari riwaaya na ci yonent bi salaa sallam yonent bi na al muslimu lil muslimi kal bunyan al marsus yashuddu ba'dahu ba'da mu ne julit ak mbok julitam dafa melni ni ki rek tabax buñ tabax ku nek nek ci mool ku nek rek ya dëgëral sa sa sa bop sa morom lolou mom moy de nga ak ak julit kon l'islam fami o mbok yi de nga julit ni moy ñu ag ci mboko fo xamne da ngay dem ba gis sa morom diko ko diko onako ya ana e yow man li nga bëggal sa bop nga bëggal ko de nga sa mbokam julit kon foofu julit ag fofu pour mën nek julit bo xamne julit bu bu bu bu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj leen ko na ko ayu naas afdal nit ñi kan moo ci gën mu ne kullu maxmuu maxmuumil xalbi saduqul lisaan qaalu saduqul lisaan naarifuhu fa ma maxmuumil qalbi qaala attaqiyu naqiyu laa isma fiihi wala bughda wala xilla wala xasada yonent bi def ne dañ ko laaj na ko nit ñi kan moo ci gën mu ne mooy képp koo xam ne xolam dafa set maxmuum yonent bi moo ko firil boppam ak koo xam ne dafa dëggu dégg nga ci ay waxam bu waxee dégg nga du fen mukk ñu ne ko ku dëggu ci waxam xam neen ko waaye lan mooy maxmumul xal bi mu ne mooy koo xam ne dafa ragal yàlla xol bi set benn bàkkaar nekkul ci xol bi maanaam yéenewul kenn lu bon yéenewul kenn safaan waaye mañeel tamit nekkul ci bañut benn jullit waaye wuruj tamit nekkul ci xolam kañaan tamit nekkul ci xolam kon lislaam fa mu lay yóbbu mooy gannaaw ak gëm yàlla raxas sa xol bi ba mu set ci gàkk-gàkk yi nga xam ne kum nekk ci moom du mën a ànd ak da nga da mujtama dafay nekk koo xam ne seytaane la boo xam ne day yàq diggante yi nit ku añaan foo ko fekk du bëgg nit ñi ànd nit ku añaan foo ko fekk du bëgg lu baax loo xam ne dañ koy tabax nu mu ko mën a yàqee dina ko yàq moo tax nag yonent bi salaa salaam mu ne maxmuumul xal bi mooy koo xam ne xol bi dafa set wecci amul benn xasad amul benn kañaan amul benn buxdu ku kum gis si yow ne am nga ngëneel dafay jàpp na ngëneel loolu moo ko moom foofu la ab julit war a àgg moo tax nag mbokkoo googu nga xam ne lislaam oote na ko nga xam ne dafa seeyal lépp loo xam ne ak famille la fii laa bokk ñi ñoma jur lépp sétal sétal len ko ku nekk ben mbokk nga am moy mooy lislaam moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu ci gàmmam yi nga xamne ci lay tabax lolu de xamne feñ na ci mbolo mi nga xamne ñoko top wax na le fal islam ayuha al ikhwa kama rasamahu al qur'an lana bi wuduh iman billahi wahda wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu na ngeen xamne dal l'islam moy ni nga xamne non lañu ko al qur'an alquran ci lu leer mooy gëm yàlla gëm yàlla wéetal yàlla ak jaamu waaye gëm tamit na seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi yàlla la mu ne nag topp nag su mal uxuwa la ca topp rek moom mooy ak mbokkoo kon faw nga tabax sa diggante rek da nga de sa mbokk yi wal musaawa ak yemoo ak da nga de ñëpp bul xool kenn bët yi ne man maa ko gën parce que am naa alal wala buur laa wala fii laa bokk wala nangam ak wa takaafu ak dimbalante wa ak jéem a fexe ba nose benn woto tadaamunun ak dégg di dimbalante wa taraaxumun wa taawunun di dimbalante laa taqaatoo mu ne amut nag daggante wala merwaante wala bàyyante amut laa siraaun amut tamit xëccoo goo xam ne day nekk ci diggante jullit ñi wala tabaaxudun mbañeel mënta am ci biiri jullit bu fekkee ak njulit wér na waaye tamit wala taxaasudun kañaanaante am mënta am place ci biir ak jullit ak mbokkam bu fekkee ne njulit ga wér na baye mu ne radiallahu anhu lolou mom moy di l'islam kon gëm yàlla gëm gu wér waye timit ak mboko kon dafa firi rek innamal mu'minuna ikhwatun innama harfu hasrin la tak da fay gaw julit dal julit moy mbokam waye xolal al muminu awwalan moy nga gëm yàlla gëm gu wér waye de nga al ukhuwa mo cey top kon faw sa digganteeg sa borom dang koy defar waye sa digganteeg sa mbokk yi tamit koy defar moy faw nga bëgg nit ñi motax su fekke ne jëflanté ak nit ñi ci jëflanté ak mbëggeel ci jëflanté ak kon sëriñ bi ñëw na leen yëkëti zikkar cheikhna cheikh Mouhamadul Mahi khadimul umma al Khalifa.